dire troisième mandat ci dégg bi la bokk ci TDR la bokk je dis alhamdulillah pourquoi je ne suis pas dans les commissions dewuma ba léegi yónneewuma kenn parce que dama fa dégg ñaari chose ki la ko dénkoon nga pare mu war ko nga war ko ko delloo mu nga koy wax ci njëkk nag ci njëkk de ma ne nag kii nga xam ne maag moom ñoo àndoon ci Macky 2012 mosul tourné gisuma un un pas derrière lui il a complètement changé et la c'est une déception hélas deuxième chose ma dégg ko mu jeter une pierre à ses anciens compagnons de Macky 2012 dont j'en fais partie et Mimi Touré et d'autres il savait pertinemment selon lui, où nous savions pertinemment, selon lui, que si nous votions un référendum par le oui, il aurait droit à un troisième mandat à partir de 2024. Faux, man ñàkkuma fulla ñàkkuma fayda avec tout le respect que je lui si nous avait dit que ku voté oui il aurait droit à un troisième mandat man du ma ko def quel que puisse être le décret bu mu ma une transition